madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun mundin min sunubin wa min sulmi ما لا أني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليمي للمصطفى الموجل اليمين. aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy déglu te di ñu seetaan ñu dellusiwaat suñu jataay bi ñuy wax madinatu ilmi ñu di ko amale fii ci sunu 24 actu euh, ñu fas yéene tey nag dellusiwaat ci beneen jataay nin ko baaxoo def xam ngeen ne dinañ waxtaane lépp loo xam lu jëm ci xam-xam la di ci dalal ay boroom xam-xam waaye di ci waxtaanee tamit actualité lépp loo xam diine ak gisinam ci mbir mu nekk tey nag ñu bëgg a dikk ci jamono bi ngeen xam ne xam ngeen ne ñu ngi waajal fi ñu toll ni wax ay élection tànn sunu njiitu réew am ñu baree baree bari ci askan wi tàllal seen loxo ne ñoom danoo bëgg a jiite askan wi danoo bëgg a jiite senegaal ñu ci baree bari nag di wax seeni programme yi tax ni askan wi doyloo leen ak askan wi wóolu leen ngir jiitaloo leen réew mi ñun ñi nga xam ne nag ñun ñooy tànn lu njiit war na noo xam njiit nan lay mel ki niy tànn ngir mu jiite nu yan qualité lañu war a jiite loolu yaakaar naa war nañ ko xam bu baax a baax a baax ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñoo bëgg jiite réew mi tamit war na noo xam ñi ñuy jiite lan mooy seen bëgg-bëgg ak fan lan bëgg seenam réew mel ni bu ko defee ñu tàmbalee ci ki nga xam ne mooy tànn moom miy laaj réew mi ne dafa bëgg a jiite réew mi te loolu xamuñu ko woon bu jëkk a jëkk ci taarixul islaam dama bëgg jiite moom kenn xamu ko woon yonent bi salaa salaam ci ay jamonoom bi nga xamee ne day fal ay gouverneur ak ay nit ñu koy nekkal ci réew yi bokk na ci philosophie bi mu doon def ku ko laajte du la ko jox ku laajte dama bëgg ñu fal ma réew du la ko jox am na ñu ko daan laajte tamit boo ko laajtee yonent bi ne am na lu tax mënoo ko ndax ñaar boo ko laajtee am na loo bëgg benn sa intérêt bopp xañ na moo tax ngay laajte benn boo ko laajtee tamit mën naa am nga laaj ko te fekk ne mënoo ko am na ko ko mas a laaj yonent bi ne ko dama bëgg jiit yonent bi ne ko yow mënoo ko dangaa dayif dangaa xaw a doye di daal jubluwut ne ko dangaa doye di waaye nit ki ci ay qualitéem yi koy xoolee dafa laabir am na nit koo xamante ni tey bu yore woon caabi magasin bi magasin bi ci kër gi ku dikk ne ko jox ma dara mu jox la fekk ne du du bonam du kiyam waaye ak laabiram tax na ku dikk mu ne te fekk ne mbir du doxe noonu mbir ci organisation lay demee moo tax ki koy yore war naa doon ku dëgër koo xamante ni xam na lan mooy responsabilité ak joxe ak fan lan koy soxlaa ak ban heure lan ko soxla bu fekkoon ku dikk rek ci màngasin bi ne la jox ma nangam dana joxe ba dépasse heure yi ñu soxla dépasse kenn du ko am ndax jigéen ñi noonu lan baaxoo ak góor ñi sax waaye boo ko tegee ci programme bu dëgër ku la ci mereek ku la ci merewul yëg ne lii kat dundu askan wi la loolu danga nga ca sàmmonte bokk na ci ki koy yore qualité yin ñu war a xam ci moom njëkk mooy war na cee xam am ak njub ak njub njub war naa nekk ci moom kii laaj réew mi benn bi ci desaat am na leneen lu ko war a gungewaat mooy xam-xam xam-xam war na ko gunge ci wàllu la muy laaj bokk na ci la koy ciy gunge mooy jox nit ñi àq ku ci nekk mu jox la sa àq ji nga am bañ laa xañ àqam joxe àq nañ euh, nit ku nekk nga jox ko àqam tekkiwul ne euh, dangaa yemale ñëpp yemale ak joxe nit ku nekk àqam bokkut yemale mooy li nu bokk nga yemale leen ci waaye ku nekk ak àqam nga jox ko ku nekk nga jox ko àqam ca waxtoom waxtoom loolu it lu am solo la nit ki yenn saa yi nga jox ko àqam te ko ko ci waxtoom loolu daf cee am solo njiit loolu soxla nañ soxla nañ njiit loo xamante ni tamit kuy déglu aw askanam la xam lan la askan wi soxla bokk na ci programme mu Sénégal nag seen njiit yi di laaj réew mi nag ñu ngi koy laaj ci ñaar mooy bëgg nguur ak bëgg a fayantoo walla benn bi mooy bëgg alal te yàpp naa ne ñaar yooyu benn bu ci mën a manqué ci sunu njiit yi bariwul li la koy xamal mooy seen programme bépp bépp bépp ñi ngi nattale xelu nit ñi la ñuy nattale maanaam amul kenn ku ci am programme boo xam nit ñi man daal seetlu naa ne sama askanu réew yëg naa ne nangam baax na ci ñoom waaye ñoom laajunu ko waaye li ñuy def li nit ñi soxla rek mooy seen programme mooy kàndidaa bi dikk ci yow li mu lay wax mooy dinaa fexe ba yoon am fii ndax gis naa ne seen yoon yu baaxul dinaa fexe ba ngeen am courant ndax seen dëkk bi daal lëndëm wàllu santé bi yëg naa ne tamit santé manqué na dinaa ko yëg naa ne tamit commerçant yi di dem seen eh, tax taksi yi dinaa fexe ñu wàññi ko baykat yi tamit dinaa fexe ba lu nu bay ñu jënd ko dinaa leen di jox jiw ñii sàmm tamit dinaa fexe ba sàmm wutal leen àll fexe ba ñoom tamit li ñuy sàmm seen jur gi ñu fexe ba ñu wutal leen alama bu doy boo xamante ni wàllu lu mel ni repas wala fu nuy sàmmee wala wutal leen ay kii ay vétérinaire benn bi ci des mooy dinañ dem ca xale yi ne leen sport bi seen naa ne football bi ngeen di def sport bi yëg naa ne sooxee na dinaa leen wutal fii ay terrain dana àgg ba ci mbëri làmb yi sax da dégg ñu ne la leen kii bu nu demee ci ñiy napp ci gi naan dinañ fexe ba aaral leen géej gi dinañ fexe ba bu ngeen indee dinañ leen wutal fu ngeen di denc seen jën yi ba du yàq du ngeen man di jaaye bitim réew ilaa axari yi yooyu rek lan lay lan lay kiyal yooyu rek mooy programme seen dëkk bi tamit yëg naa ne amul leen ndox forage bi dinaa fexe ba bënnal leen forage xeeti dige yooyu dong dong dong mooy dige candidat yi amul leneen lu ñuy dige déggoo ci dara lu yees doo dégg mukk te loolu li tax ñu koy def mooy fu ñu dem rek dañuy xool nit ñi lan lan manqué wala lan mooy seen problème waaye du ñu natt mukk mukk mukk ci wàll woo xamante ni xalaatu ni ginnaaw ñoom dañoo jàng ne ay intellectuel lan war nanoo di xalaatal nit ñi loo xamante ni kat nit ñi seen xel àggu ca seenam njàng àggu ca ñoom ñi bëgg a jiite ñu xamal leen ne leen sunum njàng ak développement bi nu xam cim réew ak yor am réew bokk na ci yii war ngeen ko am loolu xañ na sax du jamono bii lañ ko soxla waaye senes bi ñëwaat ak askan wi ñëwaat war nañ leen wutal nangam Sénégal seetlu neen ne fi ñu toll at yii di ñëwaat ci ginnaaw problème ndox dina bari ci réew mi gis ngeen ne tàmbali na fi sax te li ko waral mooy prévoir nu ay kii gis ngeen ne tey sunu dëkk bi nga xam ne moo di Sénégal naaj wi ñu am nga xam ne naaj la woo xamante ni ay salaire mën na noo fexe ba courant di am dootu nu fayati courant waaye loolu lépp formé wuñ suñ ndaw ñi ñii kii defuñu ci benn kii ñi niy jaay sax salaire yi niy jaay sax ñoom seenam réew sax ñoom soxla wuñu salaire ndax naaj wa war doxal seen kii bi ñoom amuñu ko ñun lu tee ñu mën a fexe suñu xale yeeg sunu ndaw yeeg ñëpp ñu formé ji leen du réew mii ñuy wax Sénégal du dan ne fi ñu toll gis nañ fi pétrole yooyu lu tee ñu formé ñu suñ ndaw yi pour ñu jàngi pétrole xam nan lañ koy seeree ci réew nan lañ koy yooyu yëpp nekkul seen problème waaye yii la léegi ñu gaawantu dikk ci ñiy fal am réew yaakaar naa ne ñëpp kuy tànn sam réew nga xam ne sa carte wi li nga ko war a jàpp mooy ak waat la ci sam réew bëgg sam réew bokk na ci carte wi ngay sànni di ko sànnil nit bala nga ko sànni ngalawaay bu ko sànni ngir 10 mille francs bu ko sànni ngir 2500 yu ñu lay jox bu ko sànni waaye seetal ñi la wax programme bi nga xool ci kan moo ci gën a ragal yàlla ak kan nga ci gën a xam ak njuwam nga sànni ko ndax loolu yàlla dina la laaj ëllëg yombal xiyaam sa carte yu nga sànni lu tax nga sànni ko boo nee damaa gis ne diw sàngam ah sama intérêt bopp a taxoon wala damaa gis ne diw sàngam kat moom moo taxoon ma sànnil ko ko loola yàlla dina la ko laaj te mën na la cee yóbbu ca feneen foo xamante ni foogoo ko woon moo tax nag kon boo koy sànni nag ngallaawaay na nga seet ku ragal yàlla koo jàpp ne moo gën ci réew mi nga sànnil ko ko te par parloo bañ cee nekk waaye intérêt Sénégal nekk ci intérêt réew mi nekkee bokk na ci nag rawatina kilifa diine kilifa diine gi nga xam ne ki dikk na la lii mooy programme wax la ko yow war ngaa am programme boo leen wax yaakaar naa kilifa diine nag ku ko mën a wax programme boo ko mën a wax te boole woo ca daaray alxuraan. boole woo ca njàngam xale yi nga xam ne baaxut alxuraan ji ñuy jàng ñu ngi leen ay yalwaan amuñu fenn fu nu dem bu ñuy jàng ci ay tabax yu eggut ay mbaari sàkkat la ñuy jàng ay daara yi nuy nekk daara yi yenn condition baaxu ci amuñu docteur yu leen faj amuñu financement bu ñu leen jox amuñu dara loola war ngaa laaj candidat bi ne ko waa yow lan mooy sa xalaat ci njàngam xale yi ne ko imaam yi nga xam ne dañuy jiite ci jàkka yi te ñoom ñu waroon leen di leen wutal ay matuwaay ay waruwaay ñiy julli ji fajar ñiy julli ay timis ay guddi ak ñooñu taxawee ni askan wi di leen yee ci seen wàllu diine ñooñu lan mooy sa programme ci ñoom loolu yaakaar naa kilifa diine war na koo laaj war ngaa laaj tamit ne ko waaw yow lan mooy sa programme ci dorog bii nga xam ne xale yi dañ koy jaay ak di ko tox ak di ko def lan moo ci sa programme war nga ko laaj ne ko waaw yow sàngara si nga xam ne xale yi léegi ku am ñaar fukki dërëm mën a am sàngara di ko naan loolu lan moo ci sa programme war nga koo laaj ne ko jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp di taxawaalu ci mbedd yi ak ñu util leen kii lan mooy sa programme ci boo toogee lan mooy sa programme yi tamit ci télévision yi nga xam ne programme yu bona bona bon moo ci am yoo xam ne li ci ëpp lépp day yàq xale yi lan moo ci sa programme lan mooy sa programme ci kuréel yu bari yi nga xam ne dañoo jóg te kenn xamul lan mooy seeni source kenn xamul fan lan ko formé kenn xamul ñan ñoo nekk seeni ginnaaw lan mooy sa programme ci ñooñu déeg yi nga xam ne ñi ngi rey xale yi jigéen yi di leen wiyele di leen def ñu mat a gudd dara lan mooy sa programme ci boo toogee ci xale yooyu lan nga leen di aare lan mooy sa programme ci nit ki nga xam ne bu tëddee këram ñu dajji kër ga fekk ko ci biir rey ko jël alalam lan mooy sa programme ci loolu lan mooy sa programme ci jikko yu yàq yi nga xam ne dañuy dem ca armeel ya fekk nit ku dee ñu koy sulli di dagg ca morso yaag ciy cëram lan mooy sa programme loolu sax ñoom jiñ nañ ko politiciens yi nee nañ li ëpp lépp ci ñoom la waaye jikko yu ñaaw yu bon yooyu kilifa diine yaakaar naa gu nit dikk ci yow wut si la boo ko laajut li yaakaar naa ne laajoo ko dara te yaakaar naa ne bokk na ci nituk diine diine ji la far war na tax waxtu wu nekk nga protéger ko bokk na ci tamit ci waxtu wu nekk lay wàllu diine yow nga am ci sa responsabilité boo xamante ni ku dikk xam ne nangam loolu nag candidat yi defuñu ci dara am na ci probal responsabilité waaye li ko waral mooy nit kat bu fekkee ni diine la fal te nit ki saa bu dikkee ci yow doo ko wax waxtu doo ko wax lu jëm ci diine doo ko wax programme diinee bu waxtu julli jotee sax man ngaa toog di maslaa moom ba waxtu wa jàll te doo julli ne damaa amu gan naa bàyyi ban dem loola la muy candidat bay xam mooy xam ne diine ñoru la moo tax lala ñor loola ci lay dikk di wax ak yow bu dikkee naa la sëñ bi war nañ laa wutal ay tracteur yoo bayee war nañ laa wutal courant ay enveloppe yu ñu la jox loola nag saa boo ko lekkee la nga lekk xam nga ne lekkoo dara dara dara dara dara dox loo xam ne lu leew la ndax lu askan yu bokk ñu ñëw jox la ko te ban la koy jox dañ laa woow ba ci benn roq ñu buuxu la ko waroon ngaa laaj lii sama lan la lii nu ma jox lan moo tax ñu jox ma ko diine ji moo war a doon sa xeex moo war a doon sa arme fan diine fan lay jooye fan lay joo jo jote ak yuuxoom ci yow la amoon yaakaar bu demee ba yow mi mu amoon yaakaar mënoo cee dox benn jéego bu boobaa xamal na responsabilité ba taxoon ñu teg la fa matoo ko dañ la koy jiiñ waaye matoo ko bokk na ci nag li tax loolu candidat yi suñu dikkee yii lañ lay wax mooy nit ñi seen gis bi moo jëgut seen niwo moo yem fii moo tax candidat bu nekk day tondale askan yi seenu askan seeni bëgg-bëgg xam nañ ne fii la bu buñ demoon ba ñun ñu yéegal suñu niveau ku dikk ñu ne la diine ji lan moo ci sa problème lan mooy sa responsabilité bu boobaa kandidaa buy wax di nga wax diine waaye Sénégal ku wax sax boo tuddee aaya alxuraan wala nga wax diine dañuy jàpp ne sax doo nitu politicien fekk ne politique nit ki war na koo def mën a nekk ca pale ba nekk fa jiite nit ñi bu waxtu julli jotee mu wàcc ajjuma jiite ci pale bi jiite askan wi delluwaat ca pale ba yonante bi jiite woon jullit yi de noonu la leen jiite woon moo doonoon chef de guerre bi moo doonoon imam bi moo doonoon jàngalekat bi loola nag kuy jiite am réew war ngaa jël yenn responsable war ngaa bàyyi xel tamit boo ko jiitee askan wi ëllëg yombal xiyaam lan la la yàlla di la laaj loolu it war nga koo kii mooy kii sànni aw kartam kartam woowu mu sànni jàpp na da koo sànni rek yàlla dina ko laaj kart woowu lan moo taxoon nga sànni ko ak fan nga ko sànnee nit ki nag su fekkee dañ koy fal ci am réew jikko yi it war a tax ñu fal ko war na noo saytu na saytoo réew ma ay jikkoom war nañ koo saytu ba xam doy na nit ñi léegi nit ñi tànn njiit bokk na ci moom kat ku jàng la demoon na Europe am na lijaasa sàngam def na médecine def na def na nangam def na nangam fexe ba indi ay lijaasa yu bari fekk ne lijaasa yu bari yooyu du ci dara lijaasa bu àndut ak ab yar àndut ak teggin àndu gëm yàlla loolu du dara moo tax yenn saa yi nga dégg kuy wax discours da ngay yëg ni kii doone manqué na xam-xam waaye di nga ne manqué na ab yar nit nag saa bu manqué yar manqué jikko joo xamante bokk na ci candidat yi li ñuy wax bu nuy wut réew mi lu nekk dañ koy wax yaakaar naa ñun ñëpp déggandoo nañ fii koo xam ne nee na woon bu ma gañee nangam laay def ba loola jotee defu ko candidat yi yëpp koo ci dàq loolu war nañ ko bàyyi xel koo xamante ni bu nee tey dafa ñuul bu subaa mën na dafa weex kooku bala nga koo jox sam réew war ngaa natt ay jikkoom ba xam ku ragal yàlla la ku ragalut yàlla nag bu la jiitee lu ragalut lu jëmut ci yàlla rek lay def moo tax réew mi waruna koo teg ci ay nit ay nangam ñoo xamante ni ñooy toog di ko moom bu ñooñ a jeexalee ñeneen jël moom ko te Sénégal ñëpp ko bokk ay nit a ko sàmmoon ba mu agsi fii ñi ko yoraat ak ñi ko moom war nañ koo sàmm ba bun dikkee ñu fekk fi ay njëriñ ñun ñii dañoo fekk suñuy maam bënnal nu ay teen fekk ñu bënnal nu forage fekk ñu wutal nu ay tool ak i kër noona lan war a def kii bi boo seetloo Sénégal nin koo paajoo ba xam ne ñii ñëwaat ëllëg kër sax mën na leen a jafe am ndox mën na leen a jafe liggéey mën na leen a jafe te loolu yaakaar naa tàmbali na boo demoon def sondage fii gone yi liggéeyut kenn xamul nu mu toll te loola am na ci sax ñoo xamante ni digge woon nañ ba ne jigéen ñi amul jëkkër sax dinañ leen wutal jëkkër waaye loola lépp faraax daldi xam ne gisuñu ci dara kon carte yu bala nga ko woote na nga xool ni nga koy def dinañ dellu siwaat nag ci yeneen jataay pour jàmm ji war a am ci élection yi ndax gis nañ ay doomi ndey di ci réero ñu bokk baay ndey ak baay ci réero ab sëriñ ak taalibe di ci réeroo te yooyu jaru ko ay xarit yu nekkoon benn tey nga gis ñu bàyyante di dinañ ci waxaat ci kanam balaa élection yi ñëw ndax élection kenn du ko fooyee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah madinatu ilmin murtajan minnatun lana jari wa mundin min sunubin wa min sulmi ma la ani bi nabi kula fatidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xami min allahi rabbil arsi abqi salaatu bi taslimi lil mustafa al mujil al yammi